ñu ngi ci li la ñu Kapsi. mi ngi jugee si box numéro ñaata. box numéro 96. mi ngi toll si ñaata mois. mi ngi toll 11 mois. Kapsi lu mu nar ak gars yi. non duma rek. nee Kapsi day duma maa ngi fàttali ko am na benn groupe bi fi woyoon lève les mains et Kapsi lève les mains et représente TV ola champion ki may kan kii mooy Junior. Junior. mi ngi jugee si box numéro ñaata. mi ngi jugee box numéro 83. 83 mi ngi tol si ñaata mois Junior. 9 mois. Junior lu mu war nar ak gars yi. non affaire yi moom que le meilleur gagne rek na affaire yi que le meilleur gagne. Junior a ngi noonu. oh là là yi. beneen daanaa na ngi nii ki mooy kan moom. kii mooy Omzo. Omzo dollar Omzo mi ngi jóge si box numéro ñaata. numéro 132. ngi toll si ñaata mois Omzo. si 11 mois. Omzo lu mu nar ak gars yi fii. Omzo waaw dafa bëgg a joxante gars yi rek jël de. te kenn du gis pay naan deux raw. allez Omzo mbokku téléspectateurs champion ki mooy kan. New York koo ngi nii. New York City mbokku téléspectateur Ladoum TV kii mi ngi jóge si box numéro ñaata. 68. 68 mi ngi tol si ñaata mois kii di New York. mois mois. 11 New York lu mu nar a gars yi. ah lu mu nar a gars yi kay xanaa wu rek fexe yóbbu ndam li incha allah. mais maa ngi koy laaj ñoom Tupac. Ah, di ko laaj ñoom ñoom 50 Cent. ñëpp a nga fa te ne tuddee doom. waaw waaw macha allah. Oh téléspectateur Ladoum TV élevage bi dafa fël signal élevage bi dafa fël signal oh là là maa ngay tooj. champion kii mooy kan. kii mooy euh, Mikaël. Mikaël mi ngi jóge si box numéro ñaata. numéro 69. mi ngi toll si ñaata mois Mikaël. 10 mois et demi. 10 mois et demi. Mikaël ñëw fi ak ay naataangoom lan nga yaakaar ne Mikaël moom la fa a indi tey. waaw bon dañ ko présenté ak ay naataangoom rek pour xool. par rapport ak liggéey bi ñu def évaluer aussi entretien bi ñu def ci moom parce que concours yi loolu da ngay évaluer xar bi évaluer waale sa entretien ci xar bi voilà loolu la quoi oh là là mbokk téléspectateurs yi Mikaël la ngi noonu yéen ko gisandoo nekk na jeune mâle bu extraordinaire nekk na jeune mâle bu pare oh là là borom borom mbaxana kabooya ngi nii ba Texas Texas la jugee indi xar mi macha allah champion ki mooy kan. kii mooy Rahma. Rahma mi ngi juge si box numéro ñaata. mi ngi jugee si box numéro 235. mi ngi toll si ñaata mois. mi ngi ci 10 mois. macha allah lu mu nar ak gars yi kii di Rahma. non daa ñëw kii rek daa kaf si macha allah lo am na solo loolu neex na oh macha allah il est très beau kan. kii mooy Newton. mi ngi toll ci ñaata mois. huit mois. jugee si box numéro ñaata. box 27. lu mu nar ak gars yi. dóor bañ tëdd. tët tët tët waaye waaye lu ma gën a neex te ngaa de génn na tey tey caaya génn na oh sama cameraman jëlal ma caaya caayaa ngi nii caaya feeñ na te ngaa de feeñ na cosaan a ngi nii kii mooy kan. waaw kii mooy Sadikh. mi ngi jugee si box numéro ñaata. box 48. mi ngi toll si ñaata mois. moom mi ngi ci 12 mois. lu mu nar ak gars yi. ah rek di ñaan yàlla mu may ñu ndam. dóor dóoraat. ah non <laughs> na day macha allah. waaye man innovation lii daal ñu ngi koy doog a gis. guleet xar mu ñuy tuuri parfum xar bu ñuy xeeñal neex guleet ki mooy kan champion. ki mooy Pàccooli. Pàccooli mi ngi jóge si box numéro ñaata. box 18 la jógee. toll si ñaata mois. 11 mois. lu tax ñu koy diw oh. ko tuddee. pàccool yi lu mu nar a gaay. waaw duma leen rek. ba pare laala leen. xoola guddi guddi jàmm gën. oh là là guddi guddi jàmm gën mbokk téléspectateurs yi waaye dama fee gis ki nga xamante ni si mooy caatu xar yi moo ci gën a nekk gone mooy seen rakk-rakkaat mi ngi nii taxaw kii mooy kan. kii mooy Maka Touré. Maka moom xar yee ay moromu baayam la nar a xeexal. waaw ay moromu baayam xeexal. mbaa dina ci am ndam. a ah, yaakaar nañ ko. say baay taxaw nga bëgg door seen baay. maa la wax loolu. mi ngi jóge si box numéro ñaata. 23. mi ngi tol si ñaata mois. 2 mois la am le mars la judd. të të të të të waaye mbokk téléspectateurs yi kii combat am dana metti parce que poids plume la war a sëgg bëre ak ay poids léger ak ay poids lourd oh. loolu dana metti de. maa la loolu. lu mu nar ak gars tey. wan leen ni leen lim leen gën a nekk xale la leen mën a rek. oh là là mbokku yi nekk na lu doy waar boo xoolee lii tey nekk na affaire bu extra ay xar yu rafet ay xar yu am niveau ay xar yu pare ay xar yu toog oh boo xoolee xar yi xam nga ni dixième édition la Roumette de Mbour macha allah nekk na foire mucc ay version 2024. ay maal yu doy waar yoo xamante ne si ay jeune maal yu extraordinaire ay xar yu pare ay xar yu am niveau ay xar yu toog ñii tamit comme ni ma leen ko waxee ñoom dañ leen di évaluer ñoom kenn du leen takk ñoom dañ leen di évaluer diñ leen di évaluer mooy lan membre de jury bi mooy taxaw di leen xool di leen càmbar di càmbar seen côté gauche di càmbar seen côté droite di xool seen kanam ak seen gannaaw di xool seen taxawaay nekk nañu ay xar yu rafet ñooñu noonu lañ leen di évaluer ay xar yu extraordinaire xam nga ni dixième édition Ladoumé de Mbour oh version 2024 foire bu neex foire bu riche foire bu am niveau xar yu rafet ànd ak seen télévision Ladoum TV. ñii ñi ngi ñëw di seetaan li nga xamante ni si mooy concours bi mais champion naka nga jàngatee concours agneaux yi ak agnelle yi. man daal xar ba rek ma daanal. bale moo ma daanal. moo la dàqal. moo ma dàqal si nan la la dàqalee. kulóolu bi taxawaay bi setaay bi. ñu gis fukki xar taxaw fii nga seep ci benn xar ne boo moo ma dàqal. waaw daa fees su la wanee gannaaw si nga gis jëmbu ji. macha allah macha allah mbokku téléspectateur Ladoum TV loolu am na solo boo xoolee ci fukki xar mu tànn ci benn ne boo ma ku ci nekk rek am na ko champion def. sant yàlla ba alhamdulilah. champion gis nañ ne da nga liggéey ba wàcc ci concours bi di seetaan. waaw gis nga de. naka nga jàngatee évaluation xar yi nga xamante ni si ñoo taxaw fii. waaw man moom xam nga wax mi ko doon ma kaa mënul mais c' est la première fois ma dugg foire xar. macha allah waaw maa ngay soog a dugg. gis naa fi loo xamante ni foire fu mu amati fi Sénégal dinaa fi ñëw incha allah. rawatina Mbour. waaw man moom nekkuma nekkuma éleveur quoi. Mm-hmm. mais wax dëgg yàlla moom nekk bu neex quoi. waaw maa ngi fi gis ay xar yoo xamante ni mun naa ni mosuma ko gis quoi vraiment baax yoo xamante ni mooy loolu waaw. ah mu dugg si foire xar ah, moom day yar mu yar. non moom day yar après sax. jox ko mu yar dina dugg dina dugg. waaw waaw maa ne ko nañ dem foire ba quoi nga nga découvrir réalité non dina am dina si am incha allah waaw yi moom moom nice quoi moom dina ah dina seera te gis nañ fi loo xamante ni nag euh, gis nañ élevage bi si kanam tuuti waaw ah, beneen affaire di gis waaw ah, suñu xel dal na quoi. macha allah mbokk téléspectateur gis ngeen loolu nekk na lu rafet boo xoolee tey bi. nekk na évaluation bu mu ayib ay xar yu pare ñoo fi nekk ah dixième édition laa du mel de o oh, ay xar yu rafet ñoo fi am élevage bi dafa fël signal waaye damay dem fële ci ci turbine bële ñu jël fa quelque ñi nga xamante ni si ñoo ñoo war a ñoo ñoom la ñu war a waxtaanal ñu wax ñu tey ji naka la ñu gisee li nga xamante ni si mooy évaluation bi ma ànd sama caméraman sama caméraman ñëwal ma xool ki nga xamante ni si moo tegle la tànk champion na nga def yaa ngi teg la tànk di càmbar gars yi naka nga jàngatee évaluation bi. non macha allah moom laa du met moom vraiment tey jii nii seen def nañ benn amélioration bu bu rëy ci organisation mais wax dëgg fa yàlla kontaan nañ daal ak ajo yi macha allah. xol seet na bu baax a baax. non concours bi dina seere dina metti ndax año yi ñoo boo xoolee año yëpp a rafet vraiment lépp élevage mooy gagné rek. waaw macha allah champion naka nga jàngatee lii. ça va wax dëgg yàlla Mbour moom innové nañ quoi sérieusement di wax ni di nga fi gis concours jeune mâle boobu bu serré parce que xar ñoom ñëpp ay naataango lañ di wax ni que le meilleur gagne incha allah. ok jongante foo ak la mbokk téléspectateur Ladoum TV xam ngeen ne tey lii nekk na lu mucc ayib nekk na lu rafet nekk na affaire bu extraordinaire boo xoolee décor bi tey lu rafet tey jii nee nañu élevage rek mooy gagné te rek mooy gagné mbokk xam ngeen ne kon dixième édition du Maire de Mbour version 2024 ay xar yu am niveau ay xar yu pare fukki weer ak benn mi ngi noonu ngeen gis nekk na xar mi nga xamante ni si xar mu rafet boo xoolee dafa def teg teg bi dafa wàcc tegu fas la jàkkaarloog ñi nga xamante ni si mooy membre de jury bi ñu koy càmbar di ko diagnostiqué di ko xool di ko xoolaat di ko wëlbati gauche di ko wëlbati droite oh là là tay tey tey tey gi dana lamber tey carte gi dana lamber ñi nga xamante ni si ñoo war a départager xar yi ñooñu yërëm parce que xar rafet yi ñan ñoo leen war a xam nga ni du yomb ndax xar waaw mi ngi noonu mi ngi noonu mbokku téléspectateur Ladoum TV mi ngi jóge ci box numéro 23 mi ngi toll si ñaari weer ma nga noonu ma nga def robe bu weex nee na mbee ña nga fuddan ñaari tànk kanam yi ña nga fuddan catu geen ca suuf waaye kii ma ci jaaxal mu ngay compétir ak ñi nga xamante ni si ay moromu baayam la ay moromu nijaayam la ay moroomu tontoom la ay moromu grand frère am la ñooñu lay compétiral oh là waaye xar mi rafet na xar mi am na niveau ndax lan am na fit parce que tey ki nga xamante ni si moom lay mi ngi jongante ak ay magam ay naataangoo baayam lay jonganteel ndax moom dana am chance a nañu xaar membre de jury bi waaye nee na mbee gaa yaa koy càmbar di ko liix mbóot di ko lijjanti di ko xool di ko diagnostiqué. ma nga noonu di ñëw di koy défilé ma sol maya Barcelone boo xoolee ña ngi ko takkal ay dàkk ay dàkkal ndaam lañ ko takkal boo xoolee ma nga teg ca ndigg la ña ñaari tànku kanam yi catu gen ca suuf ma mi ngi toll ci huit mois oh là xar maa ngi rafet xar maa nga yanji xar maa nga jongama xar maa ngi ne sàtt sàttaaral jàkkaarloog ak ki nga xam ne mooy ñii di membre de jury bi ñu ngi koy diagnostiqué ñu ngi koy lix mbóot waaye waaja sukk na ki nga xam ne mooy jockey bi di ko dawal sukk na ma nga noonu oh xar maa ngay xool membre de jury bi ma ngay xool jury ba naan la gis ngeen ma ni ma rafetee gis ngeen ma ni ma yaanjee oh là là il est très beau. macha allah ma nga noonu ma nga ci fukki weer nekk na xar mu rafet waaye ki nga xam ne moo doxal kooku lañ koy wax du du noonu ma nga noonu ña ngi koy càmbar ma nga def rob bu weex. ma nga noonu ma nga def robe bu ñuul ma nga def robe bu ñuul nopp yaa nga cuulul ña nga fuddal ñaari tànk yi kanam ak gannaaw jàllawle la macha allah ak catu geen nga ca suuf ko takkal benn dàkk dàkk lañ ko takkal couleur bu rouge blanc oh là waaye du moo koy dawal du moo ko indi du nga xam ne yàgg naa indi champion yàgg naa indi champion yàgg naa indi ndaanaan oh là là la du maire de di ñëw mooy Baye Caaya Caaya feeñ na na ko Caaya feeñ na waaye ñëw na cosaan cosaan a ngoog indi Caaya indi tengaade oh la ne journal bu rafet oh journal bu am avenir oh mi ngi jàkkaarloog membre de jury bi mi ngi leen di napp di leen xool di ñàngal na ngay ñàngal ñi nga xamante ne si waa membre de jury bi la di leen napp waaye boo xoolee xar baa ngi def teg teg baa ngi commencé ca loos ba wàcc ca garo ba dagg ci digg ba wàccaat ci biir ba oh la la ba ca cargen la bokk téléspectateur Ladoum TV oh waaye li ma gën a neex ci ki bi joke bi dafa dellu cosaan dafa indi caaya indi tengaade indi caaya indi tengaade olala ay mbongo di ñëw ma ngay njaab ma ngay jaabare nga noonu dugg ci li nga xam ni si mooy fiñ koy fi nga xam ne foofu lañ tàmbare nga am onze mois maanaam fukki weer ak benn ma nga noonu def nopp yu cuulul def nopp bu ñuul boo xoolee mi ngi def teg teg la indi ña ngi ko takkal collier bu rafet collier bi nga xamante ne fii gis naa fa verte waaw gis naa fa rouge waaye bu fa zone ñëwoon nag rek mu nekk suñu drapeau national mu nekk vert jaune rouge oh ma nga jàkkaarloog membre de jury bi naan la xooleel leen ma càmbar leen ma diagnostiqué leen ma lix mbóot leen ma ah oh, leen rafet naa nee na leen jongama naa nee na leen maa ngi yànj oh oh oh ma nga def ñebe mi ngi jóge ci box numéro 83 mi ngi toll ci 9 mois ma nga noonu di ñëw ma nga noonu di ñëw ña ngi koy doxal ña ngi koy gérer ña ngi koy nax. muy tenkam tenkam ndànk ma nga def li nga xamante ni si mooy ñebe waaye ca ndigg la oh il est très beau mi ngi toll ci neuf mois oh xar maa nga rafet xar maa nga yanj jàkkaarloog membre de jury bi ma nga jóge ci box numéro 95 mi ngi toll ci onze mois mi ngi noonu di ñëw ma nga noonu di ñëw boo xoolee ñu ko takkal chaîne moom seen lañ ko takkal xaw ma chaîne or la xaw ma chaîne xaalis la xaw ma përëm la xaw ma weñ la waaye seen bi rafet na seen baa ngay melax waaye xar ma rafet na taxawaay bu yànji la taxaw oh là là il mi ngi toll ci onze mois waaw mi ngi noonu mi ngi jóge mi ngi toll ci onze mois jóge ci box numéro deux cent vingt noonu mi noonu yéen a ko gisandoo def robb bu weex taal waaye ca wet ga ca kaw tànk ba ma nga noonu ca mbagg ba def benn tampon bu ñuul ña ngi ko takkal benn collier keseng keseng la ma nga noon naan keseng keseng oh là là jàkkaarloog membre de jury bi mooy télé